salaamaaleykum mbokki internet yi lu doy waar xewati fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane Peulh muy ab ndaw boo xamante ne dafa xaru tëbee ci li nga xamante ne moom moo di ci étage sànq la am ci quartier bi nga xamante ne moom mooy quartier Abdou Ka ñu gën ko xam ci jàmm ndaw bi xarut ak bu ñu sukkandikoo ci ay information yi am mu ngi nekk benn Pël Fuuta boo xamante ne ay atam mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom jëm li nga xamante ne moom mooy fanweer yi at biñ fa ñëwee na fekk nañ fa ay élément wu brigade bu gendarmerie bu kaa bég étage bi ngeen di gis nag te pareegul fii la jëyee ji amee waa ji nag dafa taxaw ca deuxième étage ba bàyyeeku lii nag du guléet mooy am fii nga xamante ne moom mooy ci Tivaouane Peulh gis nañ ne fan yee weesu am na benn waajoo xamante ne dafa daw dugg ci ab teen xaru li tax nag ba léegi ni mënuñoo xam lan la waaye ba mbir mi amee itam toogaan nañ tuuti sapeur pompier ñëw jël li nga xamante ne moom mooy néew bi jëmale ko fi nga xamante ne moom mooy hôpital laajte bi nit ñi di laajte itam mooy lu tax képp koo xamante sa xel nekk na ci dee rek amul amul dara looy xalaat du dul xaru li olof njaay di naan ay du yem ci boppu borom ba tax na xew bi fi amoon sax comme ni ngeen koy gis noonu ci image yi dafa mujjee jaaree foofu yàqu kon lii lañ leen indiloon ci xibaar Kaparal Info mu ngi leen sant di leen gërëm wassalaam